bu fekkee ne def na lu luñ ko war a duma ngeen duma ko benn yoon te bàyyi coow li waaye nag bu bala bala ñu koy duma maanaam waroon nañu yegg ci duma yoo xam ni pa eh, eh, maanaam eh, kon duma yi waroon na gën a mën a teel ba nga xamante ni moom du ñeme du ñeme moom lu mu lu mu kii lu mu na mu tuddati na mu tuddati du ñemee ñëw attaqué yàlla ci réew mi mais mais bu ñu waxalee dëgg te yàlla tax rek am na ñu ko gën a garaaw ñu ko ne ñu nekk ci réew mi wala côté ba ñu nekk moo tax parce que xam nga yéen seen affaire bii li ma ci gis mooy affaire làppato la ay taaliba yuy dajale taaliba yi dem complainte ci yéen te loolu noonu bu yàggee day taalum réew nañ ko teg ci yoon rek nañ ko teg ci yoon parce que am na xale bu fi taxaw ci kaamil lijjantiwu leen ko dégg nga beneen bi boobu sax gën naa sori parce que mën ngeen ni xale la dégg gën naa sori mën ngeen ni tamit xale la mais am na ku gën a garaaw Ahmed Cissé mooy booy boobu noonu nekk nekk xaw ma fan ci ci biir tuubaa booy boobu noonu di di naan ah, ah, ah, kii yonent bi jàngul ak yu kenn xamul. booy boobu moom yéen lan moo tax moom du ngeen ci def dara parce que dafa am ku ko ngemb wala dangeen ko ragal dafa am ñu nekk ci ginnaawam wala wala ñu noonu dañoo bokk ci ñi nga xamante ni buñ leen laalee dëkk bi tàkk wala lan daal bëgg nañoo comprendre lan moom parce que problème bi bu ngeen ko réglé woon ca ca du yegg si fii tey maa leen gën a contrôler Ahmed Cissé wax bu ma kenn wax gënoo leen bu gën yàlla kenn bu ma kenn wax ni Ahmed Cissé nga wax nga kii man ak moom sax xamante ñu te it maanaam ci ay doxali nit jubawuma ceeg moom loolu damaa bëgg mu leer loolu kenn ku ci nekk nag yaa ngi def sa def man mii di wax ak yow samay doxalin dégg nga am nañu ci jubawul ak man kenn ku ci nekk yow loolu la yow la engagé kooku kenn du ci mere benn doomu aadama waaw waaw mais fii ñu toll ak Ahmed Cissé mi mu taxaw di saaga ndey ak di ko def lu ko neex ñi mu koy defal nii lan la nañu lijjanti loolu lan moo tax mu yegg ak ñoom fii boo war leen mën a yàq dégg nga te waa ji bu ngeen ko bàyyee wala yooyu li tax nga naan da ngeen koy da ngeen ko bëgg jàpp c'est parce que am na benn borom sikkim bu mel na bu benn ladel nara fi narata fi narata fi à chaque fois rek yéen gis nga li tax man leen ay làppato ngeen mi ngi noonu benn borom sikkim bu mel ne laa Laden naan ko fuñ ko gis dana ko rey léegi nañ ko dem jàpp mooy sécurité am ah duuli kese duuli kese bu ngeen ko bëggoon jàpp xam ngeen fi ngeen koy fekk ngeen jàpp ko est-ce que yéen yéen man last time ay check moom ba may mujjee xool moom Jamra la bokk dégg nga ma ni en tant que ndaw Jamra moom moo saaga moo saaga yonante bi fii mooy Ahmed Cissé moo saaga yàlla fii comme ni ko ñu bëri di defee ci réew mi mais kumba ci biir loolu dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey man loolu mooy sama problème quoi ca kumba am ndey ga ak kumba amul ndey ga mooy sama problème voilà mais ñoo bokk problème bi nii kenn ku ci nekk yaa ngi ci réew mi di def lu gën a garaaw loolu ngeen ànd ak moom tamit dégg nga Antoine Diome mi nekk ci réew mi di rey xale yi nag dégg nga yow dañ laa mujjee moom est-ce que mujj la wax yow Mame Matar ni la songal Sonko attaqué ko yow say wax yi mujjee mi ngi noonu moo taxit waa ji ku ko songu rek da nga sànku da weeru waaw mi ngi noonu danga nga sànku da nga weeru mi ngi noonu booy bi ci yéen la bokkoon mi ngi ñëw di génn seen mbóot te sénégalais yi nag doom dañuy déglu de kenn mënu leen tere déglu ndax Macky sàll jéem na leen tere déglu mais ñu ngi continuer di déglu ñu ngi jàpp ay nit ci ay déglu parce que ku déglu am loo ca war a commentaire da ca wax ñii ñuy jàpp ñi ñi loolu la demee cas bi noonu la demee dégg nga yéen ñii kenn gënu ci Ahmed Cissé défendre ma ko nag ànduma ak moom de man dèjà sax dóor naa benn cinq cent dollars fee te bu ba ne ku ma ko gisal na ma ko noqal xam nga kon maa ngi bokkuñu dégg nga cinq cent laa noq fële ci kaw euh, euh, euh, Facebook bi ne ku ma ko gisal noxal ma ko bul ma ko rayal bul ma ko noqal ma ko rek man loolu laa jox man loolu laa teg ci kaw taabal bi kon xam nga ni kon ànduma ak moom ci kàddu yi mu wax waaye am na yu gën a garaaw yi nekk ci réew mi wala ñu ñoo kenn du leen laal xam nga jox naa leen benn boy bu nekk foofu noonu ci biir àll tu euh, côté Touba yi noonu te mu doon wax naan sëriñam nag nag bi moo ko rey xaw ma nag maaka mbëkk moom ak yooyu di saboté sëriñam bi nga xamante ni moom la doon tarbiyu xaw ma genre wax yooyu kooku noonu di wax naan ah, ah, ah, ah euh, kii la koy wax Ahmed la koy wax nan la koy waxee sax est-ce noonu la koy waxee sax naan ko naan ko jàngul lu nekk mu wax ko loolu noonu lan moo ko gën a garaaw dégg nga te vidéo yu dul jeex mi ngi ci dajale ay nit yu dul jeex ñu di ko wax ana seen plainte yéen plainte ku naan xaala laa waxaala rasululaay dong moo tax Cheikh Omar Diagne nekk ci biir kaso bii 33 mbàkke mbàkke ñoo ko plainte te mosu fee saaga sëriñ moo dèjà mook sëriñ si sax ñoo ànd tuumaal yi ñu tuumaal sëriñ si loolu lay défendre dégg nga 33 mbàkke mbàkke kon xam ngeen ni réew mi faramason moo ko yor dégg nga yéen xamu leen sax mais fii ay ñu romb ay jaxil laa la wax nii ñoo fi nekk di téye population bi moo waral ñuy tëj ay ndox ay ndoxu ndox yu ñu euh, kii forage yi nekk dëkk bi war cee jëriñu ñu dem tëj ko. faw nga yor xolu jaaxil for xol bu dëgër pour mën a def loolu pour mën a dem def sa commerce lii moo am ci réew mi loolu noonu lan moo tax du ngeen ko dem ngeen polente ka yéen 33 mbàkke mbàkke yooyu amaana yéen ñu doonu sax yéen a ko def pour mënoon koo tëj pour ñu noppi ci yi ngeen ñuy def ngeen tëjlu ko réew mi justice amu fi dégg nga Ahmed Cissé ngeen jàpp ko ak ñàkk koo jàppalaa yemale man dégg booy boobu noonu Cissé ngeen jàpp ko ak ngeen jàpp ko jàppale bu ngeen ko jàppee du du tax ma am lu ma Saras Faye bu ngeen ko jàppul man li may Saras Faye man noqulu ko ba ñu noqal ma ko ba noppi man loolu moo may Saras waaye yéen booy yi taxaw ci kaamilu alxuraan nag booy boobu ma lay wax noonu nag ak yudul jeex ki ki demoon tànku ah, xaw ma yàlla xaw ma nag ah yudul jeex am paa bu fi taxaw naan xaw ma day demm tànku yàlla waaye yéen Mame Matar Gueye seen affaire làppato yi yéen a Makhtar Sarr yéen saa ngeen wax jëm nii Antoine Diome ñëw am lu ma leen jox ngeen waxaat jëm nii yéen ñaar ñëpp def ngeen ko récemment yow ak kii Mame Matar ah, xaw ma Matar Sarr mujjee ñëw commencé gaarawaale naan ay comme la comme la ah, kii waxoon rek Euh, kii dafa gën a leer wàllu sekk waxoon rek naan bu ma ci bokkee léegi xeex bi kii dem def say déclaration ba mu neex la man xam naa ne Antoine Diome moo fa jaar ñëwaat nga ñëwaat naan commencé waaye nag nii wak nii wak nii waaye nii wak nii tappale tappale tappale dama ni wax leen dëgg gi nekk ci réew mi wala ngeen bàyyi individu yi ngeen ñi jàppalu di tëj ci kaso bi dégg nga loolu mooy dëgg def benn organisation population bi di leen fay nanguwu leen liggéey di dund ci population bi di sol yu baax di lekk yu baax seen kër tabarakallah pour population bi ngeen amul leen fu ngeen leen taxawu ci liggéey bëriwul li ngeen ñi taxaw di kaas de nga ci rew mi dara la fokk ngeen dem bala ngeen ci wax nit ñepp xam ko ngeen doog ci wax lool da amati ndari yi nit ñi xamul du ngeen ci wax pour ba ba bu ngeen ko telon def tay rew mi du fekk mu développer romb fi ba nit ñi di am di jot di deglu ben Ahmed cisse ak keneen ak keneen te du mom kese jël jàpp leen ñoom ñëpp ñu organiser loolu. site internet yooyu noonu dañ koy def ñoom buñ ci paree lekk ci xaalis coow lii li muy bëri yéen a ngi wax mais ñoom ñu ngi ciy récolte xaalis bu dul jeex coow li coow li loolu lépp at the end of boo ko xoolee business la yéen population bi xaalisu population bi la ñuy weñaar di leen ko jox du ngeen liggéey yéen ak seen i njaboot ngeen di ci dund lii bu dul affaire buur lu mu doon wax leen ma ko rek moo tax du ngeen mës a kaas ci réew mi récemment Mame Matar Gueye dafa attaqué Sonko ci ay tooñ ay sos ay fen moom la ko mujjee def amuloo dëgg loolu mooy dëgg te say doom gënul jub suñuy doom encore une fois dégg nga ñaanuñu ko yàlla mais say doom fu mu toll nii ñun suñu doom a ngi màgg de mais ñaa lii ñu jot a gis seen doom yi def ko ñun ñaanuñu yàlla dégg nga jàngeet ci loolu ba noppi di seetaan benn turu suñu doom di ko def kenn ku ci nekk nag yàlla daf lay jox njaboot njaboot gi moom dangay def li nga mën li ci des nag moom mooy mooy mooy euh, mooy li nga xamante ni mooy décision am dégg li ma la mais danga def li ngay mën yow nañu waxante dëgg dem leen ngeen wuti liggéey àll bi ni mu yaatoo nii politique bi nga xamante ne bu ngeen ko amoon bu tey heure bi mi ngi fees dell ak ay ay falawo yi ànd ak yéen fii nii waaw di naan dinaan jërëjëf Mame Matar Gueye jëf ban liggéey ngeen fi liggéey bu am solo amu leen fi benn liggéey bu ngeen defal boo xam ne bu am solo la bu fekkoon ne affaire bi dafa amul dafa dafa dekkoon ci Eh, di dagg ci di jaar ci kaw ñëpp kon tey doo toog ba dañu dem ba ci yàgg sa sëriñ bu fekkoon ne liggéey bi ngeen ñu liggéey ñu leen koy fay jaar na yoon du ñu toog ba ci yàgg sa ñu naan sëriñ Mountakha toog na def na déclaration fii kon seen liggéey fépp lay law parce que am ngeen ay ay ay faalowu euh, taalibe yu dul jeex fépp lay law kon problème yooyu yëpp bàyyi faal yi di régler problème yi kon yéen mën ngeen koo régler jàpp individu yi nga xamante ni ñooy def ay njombe dugal leen ci kaso bi yar leen même bu fekkee ne man dama cee bokk lan moo ñu indi fii lan moo ñu indi fii ba ñu yegg fii nii amul yow da nga saaga lii wala danga nga saagale man dama leen wax lu leer lu clair laa leen wa nee naa leen yonent bi biñ ko laajee encore une fois ci wàllu waajur dafa ne ndey ba muy ñetti yoon ma ñëw di wax sama dëgg benn imbécile bu tekkiwul dara ñëw saaga sama ndey ma dem ci profilam gis ka mu gën a bëgg mu def ka fa du ndeyam ka mu gën a bëgg a def ci profilam lay saaga man loolu laa wax lan moo ñu indi fii why we here parce que ñun ñëpp politique moo ñu fi indi woon naa ah. gis suñu doom yi di dee ci gaal gi yërmande amaana ki lay saaga sax maanaam yërmande boobu noonu bokk na ci dégg nga ñu koy kaas mais leneen indi wuñu fi woon lii mooy li nga xamante ne mooy li dëgg nañu waxante dëgg xoolante ci bët dégg nga tey waxante dëgg buñ ko defee rek dégg nga réew mi injustice bi fi nekk ñun ñëpp ñu jógandoo xeexandoo waaye kenn li li lay fay li lay fay kiy jox sa salaire doo def mukk lu ko naqari te Macky Sall ku ko wax dëgg mu ku ko wax dëgg mu naqari ko du ngeen ko mës a wax euh, dëgg da ngay ñu coow da ngay ñu benn événement ñooy ñëw rek ngeen sànni ci seen xeer daani noppiwaat ñun dañu ko moo tax ñu leen ñuy fay xaalis bi fu muy jógee gouvernement bi dégg nga population bi la ñu raxas seen bopp bi ba duñu gis dëgg dañuy en général boo gisee population bi ñu ñu gën a bëgg ñooy traître yi ñu ñu gën a bañ ñooy waxkatu dëgg yi loolu la nag population mooy population naafeq naafeq nag yàlla du ànd ak moom lii mooy suñu problème that's why we here dégg nga loolu mooy problème bi gisoo ñi ngay romb nii ay mag lañu gisoo dëgër am doole gisoo paaw tubaab gisoo dëgër am doole ñooy liggéey ci biir lii nii kii la mu ngi tiim ndox ma ca kaw a kaw maa nga ca kaw fi may gisee nii ay mag quatre heures du nag la ñuy romb mais Sénégal mag ñëpp a ngi dem euh, tarxulaay dégg nga topp ay nit fu ñu dem bu ñu dem di seeti Amadou Ba ñu dem bu ñu demee na ñuy toogee sax da nga koy gis kilifa gi toog ci kaw ñu toog ci suuf dem seeti waa ji xoolal këru Amadou Ba bi ci salaire salaire rek moo ko ko may kër gi rek maanaam kër gi waxuma la li nekk ci banque bi mais kër gi rek atte na Amadou Ba